ay médecin ay professeur yu mag ñoo ne ñàkk bii nuy coow dara wóoru ci ñi koy ñekkoo bu leen dara bett ñu jékki saay dootuñu doon ay góor nañ ko bàyyi xel ñi koy ñekkoo bu leen dara bett ñu xëy duñu am doom bu leen dara bett ñu xëy rek dee bu leen dara bett ñu lay contrôler foo mën a toll parce que amul sécurité ab docteur bu taxaw ci télévision ne duma ko def te du ma digal sama njaboot ñu def ko te ku ma xam duma ma la digal nga def ko médecin yaa ngi commencé di wax ñax xam seeni responsabilité ci wér-gu-yaram ñoom ñemewuñoo ñaax kenn ci ñàkku yi ñëw parce que xam na ñi ne ci ginnaaw ñàkku yi dem leen gëstu ci Bill Gates Bill Gates dem leen ngeen gëstu ko mooy financé 15 pour cent ci OMS faramason bu mag la te dafa bokk ci ñi gëm ne àddina bi dañ leen a war a wàññi population bi dafa bare théorie Malthus bobu mom daf ko gëm ñom gëm ne nit ñi ñoo ëpp koom mi fokk ñu pour mi stable gu bare gi di am ñu nit ñi du dara ci ñom freiner économie pour ray ay nit du dara personnes ñoy par jour ndax Nations Unies moo wax lii ma lay wax ni vingt cinq mille personnes ñaar fukki junni nit ak juróom ñuy dee ci àddina bi ndax ñàkk lu ñu lekk waaye nekkuñu ci lu dul wàññi population wu àddina bi amul beneen pexe parce que nee nañu fii ak 2035 jëm 40 dinañu jóge ci 7 milliards jëm 9 milliards te day gën a métti foog nu wàññi ba lu mu métti metti ñuy des ba 6 milliards 5 milliards bu ko mënee moyen sax mu baax pexe yooyu. àddina dafa yegg nañu xam li xew. te 1800 ak mille 1700 ak 1900 bokkul ak tey loolu na ko boroom xam-xam yépp xam àddina bi yàlla moo ko ubbil boppam ku bëgg a xam li xew di nga ko xam ku bëggul xam li xew féetewoo sàngoo sa mbàjj nag sa affaire la. waaye ku bëgg a xam li xew dinga xam li xew te soxlawul dem Europe soxlawul dem fen waaye ki xam li xew yërëm ko ndax xam fi àddina bi jëm ak saay-saay yi ko yor di ko rulle nu mu leen neexee te fas yéene rocc diine ak ngëm sànni fële ci àll ba dooleel ak caay-caay ak mbon lii mooy programme nouvel ordre mondial ba mu jeex waaye léegi loolu ku mbaax ñor di nga toog di ko seetal yàlla na ñu yàlla musal ci seen i pexe yàlla na yàlla nasaxal seeni pexe yàlla na yàlla yërëmal ñu